macha allah Salma ni nga ko waxee. Mhm. nu fas yéene ko waxtaane tey jikko ak jamono. Mhm. ndax jamono jikko ko gaw. Mhm. jamono. jikko moo koy ngir jamono jamono jag. jikko tuddul jikko ji ko la tudd. nit ku ne sam xel mooy sa ceebo. lanu tobbi jikko ca bu saxee mooy doon sa jikko jikko moom la yàlla tagge ki gën ci mbindee fii jikko ju rafet la ko tagge dèjà yonent bi daan dox ci mbeddi Makka yi xiif toog ay fan këram ci ndu fa tàkk te lu yàlla bind moo ci gën montagne yi ci Makka nan ko ñun dañu duy or ba fees ñëwoon nga dinduñu nga jël ci jaay am loo lekk mu ne leen am na ñeneen ñu ko soxla ñu ngi ñëw yéen toog reen rek xaar te bàyyi ma ma des ak sama borom nga gis jikkoom ju rafet jooju ci la niite àddina bi mhm. ba àddina bi lépp leer mhm. waaye tey jikko mu ngi tàmbali di sanax jikko mooy kandiya kandiya kandiya mooy làmp lu tax jikko doon kandiya jikko mi ngi gonge ko ci ab yar yar bu mat yar bu rafet moo tax sëriñ bay jaxate ne yar bu mat sëkk ànd ak jikko ju rafet a mat a yor. yii yaari yëf ku leen yor foo dem ma nekk ña fa nekk. moo tax mag ñi seen yitte yépp démb ak bërki démb moo nekkoon tabax nit tabax nit bala ñu daan tabax pénc dañ doon fexe ba tabax nit ndax bu ñu tabaxee nit ba nit jag ci lay mën a tabaxee jamono ba jamono jag moo tax seen yitte moo doon fexe ba yar nit jëloon nag ay loyaan yoo xamante nii moom lañ daan yare di ko teg ndax yar ñett la ñett yar rek moom yar bi nga xamante ne nii say jur ñoo la koy yar mbaa ñanu la jox ñu yar la ak yar bi nga xamante nii nit mooy màgg mhm. xam lu baax xàmmee lu ñaaw. Mhm. yar ko boppam. Mhm. ak yar bi nga xamante ni yàlla lay neex mu yar ko ab jaamam. Mhm. chance boobu la yonent bi amoon moo taxoon mu daan wax yàlla ma yar ba pare rafetal sama yar. ndax yar bu rafetee rek jikko rafet. yar bu rafetee jikko rafet. waaye ñuy dem ci jamono ba am jikko yu fi joox. di buux sunuy mbaax te nuroog njunux mhm. te ku ba seen ko fëx boo demee fekk mu di nax mhm. fam jikko yu fi juux mhm. juux juux ni ma la ko mën a nirale niral mooy exemple ngeen toogoon tey nekk ci seen jàmm di waxtaan nga jékki-jékki rek jaan ne fa juux ndaje ma day daal di tas mbaa mu yàqu. jikko yu fi juux di buux sunuy mbaax maam dañu fi bàyyi loon ay baax yu rafet ay baax yoo xamante ni yu jag la yu tedd daan tax tedd ngay doomu aadama mhm. bët bu set mhm. di feeñ ndax li yàlla bind doomu aadama la ci gën a teddal yàlla bind doomu aadama lañ ci gën a teddal loolu dinañ ci ñëw waaye jikko yooyu fi joox fekkoon maam bàyyil nu fi ay baax yu rafet jikko yooyu ñoo ñëw di ko buux di ko buux mu ngi koy buux nag ba fi mu boo sàggantut mu wàcce ko fi mu toog moom toog fa te damay faral di wax ne ku xas ba toog ci mbaax bu la ay buux ak i gaax teene faax jikko yooyu di buux suñuy mbaax ñu nit dañoo war a fexe buuxante ak moom ba jële ko fi jikko yooyu di buux suñuy mbaax dañoo nuroog njunux njurux mooy bu naaj wi tàngee jër boo seetoo ca kanam ak kanam. Mhm. da ngay seet luy war mel ni am ndox bu taa. Mhm. te loo gën a daw di ca jëm mu gën laa sori. Mhm. soo maree nag boo ko séenee da yaakaar ne am ndox la. ngir nga dem naan ca waaye boo demee ba egg dangay ngay fekk mu di naax fekk daw nga ba xëx. mu mel ni jumtukaay yu yees. yi nga xamante ni ñu ngi ci jamono. bokk na ci li nga xamante ni mooy yonjaxal suñu jikko. mbaali jokkoo yi nun nu andil. muy réseaux sociaux. mbaali jokkoo mbaali jokkoo. yi nun nu andil. Mm. mbaal mbaal mbaali jokkoo. nga xamante ni moom la ñu muy réseaux sociaux. ñu waroon koy jëfandikoo ci gën gaa rafet yi jëfandikoo. waaye ñun ñu dégg yoon wa. xàll wa ñu dégg ko jaar ca ñàll wa. ya ca gën a doyadi ak ya ca gën a xeem. ci loolu rek lan topp di ngër ngëri. muy yàq suñu jikko la fi maam bàyyi woon ci rafetal la fi bàyyi woon ci ay jikko yu rafet daan teral doomi aadama yooyu yëpp mu ngi tàmbali di wàññiku te lu yàlla bind nit la ci gën a teddal nit tedd ga googu su ko umpalee mbaa réer ko ñaare mu dugg ci accam mm-hmm. accam nekk ci loo xam ne rekk ku ko ci fekk ne accam nit su juddoo baata mbeng ngir war la tedd nga jikko doom jikko suñu borom mm-hmm. defal karaw gi mu judduwaale buñ ko watee mm-hmm. dañ koy peser ak or jël or boobu saraxe ko or mu njëkkaan te li doon li war a am. Mhm. ngir wan nit ki tedd nga ji nga xamante ne moom la la yàlla defal. Mhm. ngir soo màggee or du la jaral du la jaral sa we. xam nga tus tus mooy li nga xam ne mooy tegu fii ci we boo ko dindee. Mhm. sa tus moo ëpp valeur milliards yi ci àddina bi yëpp buñ ko dajalee. mbaa or bi ci àddina yëpp buñ ko dajalee sa tus moo ko ëpp valeur. yow nit waxu tus bi wewe baaraam yi ténq li xasab përëg lii lépp nga boole ko dem fekk alal jàmbur wala orub jàmbur nga di ko sàcc yow ana sa tedd ga kon tedd nga boobu nga xam ne moo nekk ci nit moom la nit war a xam te kat yàllaa ko ko defal ndax wala xadd karam na bànni aadam man yàlla maa teral doomu aadama yàlla dafa jël engagement man yàlla maa teral doomu aadama rëkk waay doomu aadama bul tedd dil sa bopp te ngir nit mën a am tedd nga il faut mu am jikko ju rafet soo juddoo ñu jël sa karaw pesé ko ak or saraxe ko soo juddoo bàyyi bàyyi la ci kaw lal bi nga tëdd. Mhm. mu rax sang la ba nga set. poudre la defal la parfum. Mhm. laxas la sëru rabal. solo la ay yëre yu bees tàq nga tëdd. ñu taal ventilateur mu di la upp. sa bàyyi daas paaka ba mu ñëw. dem ci géttu xar ga. moo mor fa am kuy. ñëw tër ci digg ëtt bi ne ko deq rendi mhm. kuy ma bàyyi yaayam ak bàyyam ci gétt ba ñuy jooyoo. sa baay bàyyi la yow doomam dem jàpp doomi jàmbur rendi lu ko waral tedd ga bi nga xamante ni moom la yàlla defal doomu aadama ñu togg ceeb lekk tëgg fecc bég ngay màgg doo yëg doo yëg ne yaa ngi màgg say yax di yokk doo yëg metti metti ngay ami bëñ di màgg dem ba mën a lekk ñu tegal la table à manger nga raxasu ba set tibb def ci sa gémmañ mm-hmm. xar moom moom gémmiñam lay xànce di mm-hmm. lekk ci ngooñ mi yow nit nga togg ceeb bu neex lekk yooyu yëpp di ay tedd nga yoo xam ne moom la suñu borom defal doom aadama mm-hmm. kon nit fu mu toll li koy teddal lu mu war a fonk la muy jikko jamono nag ngi dox tey la alal gën a bari tey la gànjar gën a bari tey la ab dund gën a bari tey la yëre yu rafet gën a bari tey la lépp gën a bari waaye tey la jikko gën a tàmbali di dellu ci ginnaaw mhm. bu njëkk daan nga gis kër goo xamante ni daanan xamoon nañu dëñi mbaa fande daa nga gis kër goo xamante ni la fa nekkoon ci ay yére daawul bari waaye seen ngor bu landi ak seen jom ju yaatu ak seenu doylu fu nu toll buñ génn nga gis ko ci ñoom mm-hmm. tey nga gis ku làq ay milliards di ŋaf ŋafi mm-hmm. tey nga gis koo xamante ni yàlla suturaal na ko ci bépp anam benn cëram manqué wul mm-hmm. gumbawul moo ne am na ñoo maaseel mm-hmm. mënunoo gis am na ñoo maaseel seeni tànk baaxul te nu des ak seen ngor yow yàlla sutural la ma ne la gan dara soppeekuwul ci yow nga jàpp sa moroomu nit mhm. di ko toroxal mbaa nga koy teddadil mbaa sax nga koy lor mhm. mbaa sax nga koy rey xoolal fi jamono toll mhm. ñaari bët bu set rek nga dégg ni nit rey na moroomu nitam soo xoolee la ko sabab muy poñetum àdduna moo xamante ni xëy na bu gën na ko am ci moom. te kat bu ko amoon sax loolu mënta faj soxlam su ko rayoon jël ci moom milliard. milliard boobu mënta faj soxlam soxla yàlla rek ko mën a faj. te doylu mooy koom-koom bi dul jeex. Mhm. yonent bi ko waxoon alxina kanzun laa yanfaa ñu teg foofu suñu baaraam. Mhm. soxna Salma Fall. li mhm. nga andi dafa am importance Mbaye Babacar et dafay am benn rapport ak thème bi nga xam ne amaana euh, Pathé Mbengue andi na ko ñeel réseaux sociaux yi mais naka nga ko wooweeti sax en wolof. Mbali Jokko yi mu nekk thème bu nga xam ne je pense que am na solo parce que après dafay am benn corrélation parce que euh, euh, ñun. pour surtout ñun ñi nga xam ne ñooy jeunes yi ndaw yi tey mhm. suñu vie yëpp boo xoolee bi ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu am beneen dundin am beneen jikko bu nga xam ne amaana wute na ak yi xam ne moom la suñuy wayjur wala suñuy kilifa amoon après loolu dafay am beneen répercussion wala beneen euh, xar kanam bu nga xam ne amaana jamono amoon na am na ko jamono jii nii mhm. te wute woon lool ak bi nga xam ne moo fi moo fi nekkoon di sutura bi nga xam ne amaana mu ngi fi doon am ak mhm. yeneen ak yeneen waaye li ma jaaxal mooy Mbaye Babacar jikko Euh, parce que dañuy naan ko booy gane si àdduna andiwoo andiwoo xol bu bon andiwoo jikko da ngay ñëw noonu rek comme benn nit bu gane si àdduna nekk bébé. Mhm. nekk moomin xamoo dara. Mhm. mais parfois est-ce que du aussi jamono euh, moo lay pousse euh, formaté la de sorte que nga mel melokaan bu nga xam ne sax amaana yow say waajur yareewul nga noonu. waaw jërëjëf soxna Salma xam nga moo tax ma tàmbalee ci yar. Mhm. moo tax nee naa la jikko. yar rek ko mën a def ci nit. boo amee yar bu yar bu baax te rafet. da am jikko ju baax te rafet. boo amee jikko ju baax te rafet. da ngay nite. nite daanaa koy faral di wax ngay buur mbaa nga di bummi. di doon nit ku nite ku gën. te nite moo di boole natt ak nit ba ràññee ëpp ak cëkk di taamu lu mat sëkk. nite. bu fekkonte ne nii jamono ñi dëkk jamono. Mhm. ñooy soppi jamono. Mhm. waaye jamono. Mhm. fa jant ba daan sowee fa lay sowee fa muy fenkee fa lay fenkee. lu bari li amoon ci jamono mbaa liy soppeeku ci jamono. nit mooy soppeeku soppi jamono. jamono nag ak àdduna du benn. waaw jamono. Mhm. mooy app bi nga xamante ni moom la nit ki di dund. diir la diggante bi mu juddoo ba bi muy génn àdduna loolu mooy jamono. moo tax nit ñu naan kenn ku ne ak sa jamono moo tax way ba waykat ba ne jamono ku ko fekkee war caa def lu baax ngir dem nga. Mhm. lu ay sa ginnaaw la. lu ay. lu ay. lu ay maanaam lu lu am. sa ginnaaw la aw léebu la ndax lu rafet li nga fi def. Mhm. donte da ngaa mu mel ni suñu maam Njaga Njaga May di wayoon na ci way bu am solo. sama sama sama baay boobu. Mhm. moo ko way. Mhm. boo demee it lu rafet li nga fi defoon dafiy des. moo tax tubaab naan les morts ne sont pas morts. son. moo tax yonent bi de mbaax du ràpp. mbaax du ràpp. albirru la yubda. damay dafa am benn benn benn constat bu def souvent nit def ay ay na tubaab tubaabee Diop euh, Mbaye Babacar est-ce que ne sont pas morts Birago Diop. Birago Birago Diop. moom mooy ci prestation souffle. neexoon souffle. sama souvent les choses que les êtres. <laughs> la voix du feu entend ah. la voix de l'eau eh. écoute dans le vent. les buissons en sanglots. c'est le souffle ah, des ancêtres. <laughs> Ceux qui sont morts ne jamais partis. dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. dégg loolu. da <laughs> muy jeex. Ah? mu ne les morts ne sont pas morts. Mhm. parce que jëf ju rafet. ji ngay ah, def. bàyyi ko fi. ba keroog àddina di jeex. Mhm. du jeex. dëgg la moo tax tey bu nee Cheikhul Khadim bu nee Seydil Hadji Malick. Mhm. lu la nettali ci lum def. maam Baye Niass. maam limaam moo tax ñun ñuy tiitaroo suñuy mag ba tey mhm. tey koo ci jàkkaarloog fotom sax da nga yaakaar ne ba léegi mi ngi dund ci kaw suuf moom la ñuy wax way wu rafet waaw du fay xam nga dañuy wax euh, sa thème moom mooy jikko ak jamono mhm. souvent gis benn nit bu mel ni Paada Mbeng def mbir boo xamee ne peut-être amuñu habitude di ko gis mhm. waa Paada lu tax nga def li mu ne du jikko jamono la waaw loolu est obligatoirement maanaam lépp lu ñuy def rek en fait dañ ko war a dëkkalee jamono tolluwaayu nit ki wala ça revient toujours que ne jikko ji peut-être la nëbboon jamono jooy nga xamee ne moom mooy bi ñu koy xamal ci mhm. yooyu mhm. xam nga yow ban ban corrélation ngay waaw xam nga Serigne Cheikh boroom xam-xam bu mag boobule mhm. al maktoom yal na yàlla yokki ay leeram amiin macha allah def na nuru sa jamono moo gën nuru sa baay nuru sa jamono moo gën nuru sa baay gis nga soo déggee nit ne du jikko du jamono jamono la. Mm-hmm. te fekk du lu baax war na xoolaat boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que jamono bu ñëpp doon def lu ñaaw yow fexeel ba def lu baax. ndax wolof day lépp ne du man dong bokkuma caa ku gën. ñëpp di def lu bon. yow nga ñëw def lu bon ñu wax nga ne du jikko jamono la. bu boobaa yaa ngi nax sa bopp. fexeel ba foo mën a toll. Mhm. nekk ci lu rafet lu baax. ndax mooy li nga xamante ni mooy li gën. ci mhm. jamono. Mhm. moo tax jamono ku ko fekkee war caa def lu baax ngir dem nga. dem nga. ndax mbaax du ràpp. ràpp. mbon day ràpp. ndax nit dana nekk ci lu bon diir bu yàgg. mu xëy benn suba rek. dégg benn moo moo bi sarxal ci biir xolam. Hmm. mbaax. mu jaare fa baax ba kër keroog àddina di jeex. non jëf ju bon la wax. Ah, jëf ju bon. parce que boo nee mbaax jëf jaa jëf ju bon bu ñu nee mbaax du ràbb. waaw mu jëf jaa tax jëf ju bon tamit boo ko xasee ba def si fini. du ràbb du wante nag jëf ju bon eh, dan dañ koy effacé. Hmm. nit ñi dañ la koy effacé yàlla def la koy effacer. nit dina def mbon cinquante ans def mbaax benn at mbaax googu muur bépp ñaawteef bu mosoon def ci àdduna ba mu ko ko. Hmm. Rabiyatul yi jigéen la woon ju rafet. bari woon taar buur yi ku ci masaan xewul da nga koy woo. mu am alal am jamono ngir taaram. waaye benn bis rek la xëy dajeeg seen soxna. Mhm. mu ne ko damaa mara naan. mu ne ko ndox nan la ko nit di ñàkke ba di ko ñaan. Oh. ngir fi mu tolloon ci jamono. Mhm. soxna si ko loo defal yàlla ba mu defal la tar bi nga yor. man lan laa defal yàlla ba mu teg ma may ñàkk ndox. mu def ngëm ci xol bi mu tuub. Mhm. kooku mu jënd di julli guddi gu jot juróomi téeméer rakka am ñu ne junni di ko naafila mhm. di ko di ko sante suñu borom jigéen jooju bokk na ci ñi nga xam ne ëllëg yomal xiyaam yàlla moom lay yonent bi mhm. moom lay tiitaroo ci yeneen yonent yi ndax moom am na jigéen ju baax ju doon mhm. jaamu yàlla jaamu yàlla bu toll loolu <laughs> te pourtant avant loolu am na ci leneen lu nekkoon macha allah moo tax mbaax dafay far ay ñawteef waaw mbaax nag moom bu xasee ba ñëw dara mënatu koo far. dafa leer de bu fa ne rek. <laughs> dëgg la am na solo lool Mbaye Babacar ay leçon de vie nga fi joxe te ku la topp ku dégg amaana waxtu yi nga fi rotal dina xool bu baax defaraat toogaayam ngir gën a ñoñoon li nga xam ne moo ah, di. bu kenn ne mbaax mbaax euh, tard il est pour may baax. non non non soo amoon quatre vingt dix neuf ans. Mhm. mu dese la un an pour nga dee. Mhm. pour nga am 100 pour bien faire. mën nga cee def lu baax. <laughs> waaw ba gën ba bokk ci nit ñi gën a tedd ci àddina. moo ngi noonu am na solo euh, yal nañu yàlla may dégg ak topp topp ak dégg. mu ngi noonu donc ñu lay jaajëfal bu baax mbay euh, Mbaye Babacar. jërëjëf soxna Salma Fall. Mm-hmm.